yooyu beneen cadre la dinañ ci ñëw waaye waaw ah, beneen cadre la Cheikh Oumar bokk na ci ñiy dem directement àjjana te duñ dee fii ma toog di wax ak yow Cheikh Oumar deewul ci ñun ñaan ci maawul xayaat ci la bokk te ku ma woo ci penc ma lay kook yow ba yeey la billaahi ku ma woo ci penc penc laa wax télévision bu neex waaye na ma ca waay woo ma lay kook yow te yeey la ci diggu àddina wax naa ko ci benn góor ma ne ko nag góor gi mu naa ma ne ko bàkkuwuma soo weddee ma woo Cheikh Umar mu ñëw wax la ndax dee na wala deewul boobu gën a gaaw boobu gën ah, gën a leer ah, moom moom bu ñëwee ne la deewu maa ngi nii loo ci mën njaax na fii may wax ak yéen Cheikh Omar nga dëkk ca Inde marché ba muy jaayee xam naa ko bër bu set dina def tour du monde diggante suba ak jant bu so dana def tour du monde demaat Inde toog kulla yawmin makka lay jullee gee door a ñibbi Inde ma sababu Inde fa lañ wàccee woon maam Adama nit ñi nañu for rek euh, Cheikh Omar Fouti kooku kooku bokk ci yàlla mooy def lu ko neex yawma yunfaxu fi suuri fa saxiqa man fi samawaati wa man fi l illa man shaa allahu beneen bi mu ne illa ma shaa allah bokkuñ lu ñuy dox bii man la bii maa la y a des exceptions ah loolu taxu ñu jóg nañu lii y a des exceptions te exceptions yooyu Cheikh Omar ki la bokk lu tax nga bañal ko Cheikh Omar te nangun ko waliyu xadir hmm. waliyu xadir ci la bokk ci exception yooyu wali yu xadir ci la bokk lu tax nga nangul ko wali yu xadir te bañal ko Cheikh Oumar te li wali yu liggéey Cheikh Oumar liggéey na ko te Cheikh Oumar moo gën wali yu xadir ngëneel nag ca yàlla la nekk waaye mën naa ko lay xam nga lu tax wali yu xadir bokkul ci ummatu sayduna muhammad waaw ndax ki may seetaan di ma dégloo tax balaa mu naan Chérif waxati na lu rëy waxuma lu rëy lu tuuti laa wax yonent bi moo wax ne ulamaul ummati donte am na ñu koy jam kal anbiyaau bani israil donte am na ñuy jam hadis bi nag waaye man duma ko jam man ulamaul ummati kal anbiyaau bani israil lu tax mu ne bani israil yonent bi nee na sama boromu xam-xamu xeet wi ñoo yónnant bani israil ya tolloo daraja Cheikh Umar borom xam-xam la wala du borom xam-xam te waliyu xadir dub yonent waliyu la xul saalixun la Maodo wax borom xam-xam bu bu bi xul saalixun toxtarab Maodo nee na buñ la laajee ab yonent la wala waliyu la mu ne ku neel ku yiiw la woon rek nga mucc ndax yonent weesu waliyu waliyu weesu waliyu Maodo xam na ne du yonent moo tax mu ne neel ku yiw la woon waaw wa tuxtarami bu fekkoon ne yonent la Maodo dana wax ne yonent la ndax anbiya u yëpp Maodo xam na leen maanu tem nag moo tax mu waxee noonu waaye waliyu xadir du yënant te jaar na fi ba dem fii ñu toog jaar na ba dem yonent bee ko wax balaa ñu naan sérifa ngay waxati kiraama waxuma benn kiraama yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ci xadis ne amul ku mën a xëy tudd waliyu xadir ci sa gémmiñ xëy rek tudd ko munul mu ne lu dul fa nga ko tuddee daf fa jaar ba nga door koo mën a tudd kon jaar na fi ne su fa jaaree ba nag ci nga koy door ci la la yàlla di door a ilham nga mën koo tudd te waliyu xadir fu mu nekkoon mu ngi woon ci baxru xalsum fa la ko yonent yàlla Moussa gisee woon ca géej ga majma al ni fa la ko gisee woon mu naan ci maa ul xayaat moo tax du dee mook Cheikh Umar nag ñoo ànd kulla yawmin ñooy ànd ñoom ñaar ni baaraam yi toppante noonu la toppanteeg Cheikh Umar bu ne dara mu ne dara nii nii sama baaraam yi toppante nii la toppanteeg Cheikh Oumar fu mu ne dar mu ne dar seen différence rek moo la tax ma wax la léegi nag mooy Cheikh Oumar xeetu yonent bi ci la bokk boroom xam-xam la taalibe cheikh la boobu di beneen incarnation waaw Mahdi yu bii ngay dégg Cheikh Sidi Ahmad Tidiane moo tax mu ne dégg leen li muy rëy rëy daraja ci sama taalibe yi lay bokk ëllëg mahdi bi ngay dégg Cheikhuna Tidiane yi nee na li muy rëy rëy daraja bég leen yéen taalibe seex yi ñu ne ko lu tax mu ne sama taalibe lay doon ëllëg Cheikh Umar a koy jox wér loolu it ku ma laaj ma lay ko taxu ñoo jóg soratu nuur a ñu taxu jóg <laughs> ci bay na xaw say ni rek laa nekk ma ma na xaw say ni moom la moom la tubaab di wax nu ñu koy waxeeti entre parenthèse bu dee anglais mu ne in bracket bu dee anglais mu ne in bracket bu dee arabe mu bay na xaw say ni bu dee français mu ne entre euh, entre parenthèse waaw entre guillemets boo ci wax baax na loolu rek ci laa nekk nii ndax yàlla kenn mënta wax ci moom te jaaroo ci anbiyaaw yi anbiyaaw yi kenn mënul yegg ci ñoom te jaaro ci suñ gaañu baax ñi mënul nekk escalier la moo tax saydatuna Aïcha nañ ko bàyyi xel bu baax ma ñëw ci waaw waaw waaw waaw ah, waaw kay waaw waxoon gis nga waxoon naa Alioune Sall ma ne ko bul sori demal ci muy muye rek muy muye lépp waxaat ko waaye Maodo du nit waaw waaw Maodo du nit wax na ko ba wax ki ko jullee kii Maodo da ngay laajte moom lan la ca affaire yi daf la koy indil comme moom il était présent ca wallahi il était présent ndax loo xam ne ku présent wut fekkee woo ko mënoo koo nettali wala dana des faw nettali bi des te ba ko bindee ba léegi kenn mënu koo widdi kenn mënta bindaat lu mel ni moom waa mu ne firi ko jox ko kii bi kaay waaw Sidi Hadj Malick dafa ni min ba di ma xat-xada zaydun ba coow la amee ci diggante zaydu mhm. euh, ba coow la amee ba noppi ci diggante Seydina Muhammad ak Aïcha Maodo nee na ahtaza suratal ahzab bi ci la wàccee suratu ahzab ci moom mu continue ne faltazimi na nga takkoog loola nekk te xam ni loolay li am xilaala zil iqdati nag ci weer wi mu am mooy weeru kor yi fi ami arbaatin si daaj Malick nee na booba ci ñeenteelu at bi la nga teg ko ci nova yi sang bi wax léegi mu jox la trésa yi Seydi Alin kalkine mu ne ala saqiiqi nag lii moo gën a wër minal umami ci xeet wi mu ne Abu Hurayrata moo jullee Aïcha <laughs> waaw ah, toogal rek moo tax ah. te baal leen ma gis nga Abu Hurayra te moomu moo tax contestation yàgg na fi gis nga Abu Hurayra saxaaba yi toog nañ bés ñëw na yonent bi defal très attention ci Abu Hurayra xam nga lu tax ñu tuddee ko Abu Hurayra dafa amoon muus moom daan àndal fonkoon muus mi lool nag ñu ñu wax ko yonent bi kon na nga def très attention ci Abu Hurayra ñu ne ko lu tax yonent bi ne woo leen ko mu ñëw ñoo ko mu ne wax leen lu tax may def kilifa noonu lay def wax leen lu tax ma war a def très attention ci Abu Hurayra yéen a ngi nii yéen a ko gars yi ne ta sax mu ne wax leen lu tax ma war a def attention ci Abu Hurayra ñu ne ko lenn dayee tax xadis yi muy nettali daa bari lool te moo mujj ñëw di gone gu tuuti nag boole ci te li muy nettali ci xadis bari na trop est-ce que yaa ko wax yonent bi leen ne leen lépp maa ko wax dal ne Abu Hurayra lay ko Abu Hurayra ne leen yéen dangeen di sonn ñibbi ami soxla doxi ko léeg ngeen ñëw léeg du ngeen ñëw am ci ñoo xam ne par semaine la ñuy ñëw am ci ñoo xam ne waxtu yu juróom mu ne maag moom nag duñ teqalikoo lu dut mu tëdd te du noppi mu ne même bu tëddee mu ngi wax dama fa mënta assister pour jël li muy wax waaye bu tëddee sax mu ngi wax ci ngay déggee li yonent bi waxoon ne man damay gëmm waaye sama xol du nelaw yonent bi bu tëddee sax mu ngi wax ak borom inter interférence biy dox digganteem ak boromam buy dagg àddina tukki yonent bi mënul noppi wa kazalika yàlla mënul noppi yàlla xamoo ne ba instant bu ne mu ngi wax mutakallimun instant bu ne yàlla ngi wax benn fraction de seconde yàlla du ko noppi wax naa leen ko fii dem leen Thiel bii ci Jolof Thiel ku ñuy wax Baaba Ñaŋ ñëpp dof lañ ko jàppee woon quatre-vingt-seize xaw ma quatre-vingt-quinze laa fa dem mu ne maa yi dara kaay man de jolof yëpp dañ ne damaa dof waaye yow bi nga dugg si ci dëkk bi yëg naa ne xam nga ne man dofuma ñëwal mu ne ma waxal ma waa dëkk bi li may wax mu ne ma yàlla dafa sëpp ci satadoo bi barki démb di wax ak man satadoo bi ci dëkk ba waa penc bi yëpp dëgg lii la ñuy wax ci moom yàlla fa muy sëpp sëppoo ci pour satadoo bi wax mu ne ko ah, da ngeen koy waay laaj bu yàlla wax ba pare mu ne waaw kañ mu ne yàlla dafa ne ne waa dëkk bi di aji nañu aji màkk ndax seen xaalis bii ñuy rënk bañ cee aji màkk aj màkk farata la nañ aji wër kaaba gi nag benn yoon mu ngi tolloog juróom-ñaari yëkk xam na ne waa dëkk ba ay yëkk lañ am mu jox leen ko ci yëkk mu ne yàlla ne na mu wër kaaba gi juróom-ñaari yoon benn yoon bi rek juróom-ñaari yëkk la tolloon mooy tawaaf juróom-ñaari yoon ni pour waa dëkk bi xeme ma dem aji mu ne tabbat yeddaa mooy si ngom jeex na fa la ko yemale di wax leen lu tax tabbat yeddaa di si ngom ay dara li may wax nii kañ waa kër Omar Njaay yi ñu nga fa woon ana kii waaw kañ ñu ngi mel xam nañ waa Jolof lañ xam nañ baaba ñan maa tax ñëpp doon ko jox addiya ba ma fa jógee addi mu ne ma ay dara fi mu ne doyal naa addi ya mu ne firil leen tabati ya daa mooy si ngom <laughs> firi ko waaw ah, kañ aleykum salaam jàllo géy ba mu yàgg mu ne tabati ya daa mooy làmmiñu xaj acca firi ko waaw hmm. ah, kay làmme ñu xaj ak si ngom nag benn la amuñ xilaaf hmm. yonent bi dafa ne isa walaxal kalb alal inaa i hmm. bu xaj xabee sa ndox ci bool mu ne na ko raxas juróom-ñaari yoon yoon bu mujj ba nga boole ci tuuti suuf du loolu la wax lu tax yuuti xaj dafa am microbe microbe yooyu nag raxas ko juróom-ñaari yoon setalu ko boo ci boolee suuf suuf day setal nim nim daree dar dar ba naqaree setal moo tax mu comparé kook singom singom bu fexee ba taq ci sa yére bii wala sa dàll wii pétrole mën na koo dindi dëgg wala mu taq ci sa yére bii billaay la koy dindi di nga xam ne la leneen la noonu nga xam ne singom noonu la garaawee bu taqee ci sa yére xaj làmmeñam noonu la garawee bu xajee ci sa ndox day wane ne abi lahab moo gën a bon xaj moo gën a bon singom ah ku toog ba yàlla siibile la ci biir jaamam yi yaa yées ñëpp siibile la mel ni missile guidé bi États-Unis di di sànni diir diir diir ba xam ne fii la mu ne ko tuy xoolal ni yàlla bind ni mu toll wenn saar doo nga am tabbat abi lahab cité ko nommément ñu fa la yem mu ne wa tabba maa aghna anhu maaluhu ñu ne fa la yem mu ne wa maa kasaba ñu ne ko déet mu ne wa amraatuhu wa amraatuhu hammaalatul hatab bi ñu ne ko doy na mu ne fii jiidihaa hablun min masad moo tax mu ne mooy xaju làmmiñu xaj yaa xam ma teg ma terminé ko benn mu ne waxal ma waa dëkk bi ne leen inna aataynaaka al kawsara mooy doxi ni gëlëm acca ay dara firil maa ngi toog ñëpp a ngi toog firil ma ne leen xam nga lu tax mu ne mooy doxi ni gëlëm mais ma ne gëlëm rek moo am résistance dox ci désert pendant un mois te du naan ak ni désert toll gëlëm mën na koo dox un mois ferme wala deux mois la trois mois te du naan gëlëm mën na toog trois mois te du naan te yow boo demoon ci àll bu bëgg a loru ndax ndax naa mar bëgg a dee soo ko lojee moom gëlëm gi fees ko mbaq gi am na ñaari mbuus mbuus benn bi sibbirit rek la def mbuus benn bi ndox rek la def mën nga ca jàpp naan ca te dafa sedd guy amul foroxut sobewut day mel ni ndox mu bees taq su doxee ci àll ba sonn daf koy yéegal tuuti ni xar di duññee ngooñam moom noonu lay yéegalee ndox mi naan ci làq ko ci beneen côté bi li ci des mu delloo ko mu ne gannaaw kaw sa ku ca naan dootoo mar boo bëggee dee ci àll reyal gëlëm naan tubaab yi gis nañ ko moom saar yëpp noonu la ko firee saar bu ne daf koy tënk rek jox ko dara ma ne leen kii daf di aarif billahi aarif billahi la muy wax ci yàlla boo ko xamul noppil waay bu ko weddi suuratun anzalnaaha moo tax gis nga li tax yàlla tàmbalee ko nag njaaloo njaaloo garaaw te Sénégal moom la ñuy foye addaaniyatu waaye seetal la ci mujj sayyidatuna Aïcha nee na li tax yàlla tàmbalee ko lii liñ ma tuumaa la tax kon moom am na cër ci yàlla xam nga lu tax foo dégg yàlla ne njaalo jigéen lay jiital ñu baal ma xaq ci waxin bi ndax fa ñuy njaaloog jigéen fam nekk bu la ko jigéen yombalut doo ci jot wala déet moom rekk la ko mën a yombalal nga jot ko su la ko yombalalul doo ci jot moo tax saa yoo ci jotee rek ndaw sa la moo tax yàlla tàmbalee ci moom ne yetu njaalokat bu jigéen wa ak njaalookat bu góor mu ne faj li du leen duma kulla waahidin kenn ku nekk ci ñoom ñaar minhuma kenn ku nekk ci ñoom ñaar mi ata jal da téeméeri yar su fekkee mosuñu am jëkkër mosul am jabar ci lañ leen di caw yar yooyu nag mesuré nañ ko du yar buy fof du yar buy damm yax du yar buy fulli der maanaam boo du yar boo xam ne buñ la ko dóoree sa der fulleeku du yar boo xam ne buñ la ko dóoree mën na damm sa yax déedéet te buñ la koy dóorit sa digganteeg sa yaram dara du ci dox yaramu neen ngay def du kulla waxidin minhuma mi'ata jalda ki la koy dóorit du la koy yéene waaw xam nga xàcc ma yéene mooy xàcc ci benn tey ma rey ko bu doon loolu day dee xiiral ko xiiral ko bi balaa yegg si nga dee yow sax bu yegg see fekk yaa nga àllaaxira déedéet bu la koy dóor ni la koy dóoree ni ñu koy mesurer poqataanam sax warul feeñ warul def nii ba poqataanam feeñ nii la war a def waaye na doon ko am kàttan koo xam ne benn firijam wecc na ñaar parce que dañ bëgg nga yëg ko kañ dégg nga wax bi mi jalda yàlla ne suñ borom nee na wala taaxuskum bu leen leen jàppee bi hima ci mbugal mi ngeen leen di mbugal rafatun benn yërmande fi diinillaahi ci diine yàlla ji maanaam bu leen leen yërëm bu mu bu ànd ak yërmande ndax man yàlla na ngeen ko exécuter ndax man yàlla maa ko santaane sama àtte la na ngeen ko def ni ma leen ko waxee in kuntum dem nekk ngeen tuuminuuna di gëm billaahi ci buur yàlla walla wal mi aaxiri ak bésu pénc yàlla ne su fekkee gëm ngeen ko defee leen ko ni ma ko waxee mu ne wal yashhad na ko fekkee ñaari piri la balaañ leen di duma wala balaañ leen di mbugal doo wax mbugal ndax mbugal yàlla rek a koy def moo tax wolof jafe bu ñu lay firil alxuraan man ki ma firil alxuraan alaaji saaxo saalum saalum piir la moom mu nga woon sookoon góor gu ñuy wax alaaji saaxo waaw kañ bari xam-xam moo ma firil alxuraan mu ne boo nee mbugal bu ngeen leen di mbugal mu ne yàllaay mbugal comme yàllaay rey nit day rendi nit day gëtën waaye yàllaay mbugal gëtën gëtën ngay wax waaw kañ gëtën na ngeen leen gëtën biskile ngeen leen biskile waaw kañ waaw bu ma gëtën waaw loolu dóor yooyu gëtën la tudd waaye tudd mbugal ndax mbugal yàlla rekk koy def nit mënta mbugal nit ni moom yàlla rek a mën a mbugal nit moo tax géttam lañ ko tuddee mu ne wal yashhad na fekkee adabahuma gëtën boobu ñu leen gëtën taifatun ab kuréel minal muminina ci jullit ñi buñ ko def ci wét saydatuna Aïcha nee na lu mu gàtt-gàtt na ko ñeenti nit fekkee wala ñetti nit ñeenti nit wala ñetti nit Aïcha Sayyidatuna Aïcha ne na maa dégg ci samay borom kër mu ne lu mu gàtt-gàtt na ko ñeenti nit fekkee mu ne wala ñett mu ne waaye ñeenti bee gën a wér mu ne mu ngi firiwaat moom Sayyidatuna Aïcha nee na xam nga lu muy firi mu ne balaa ñu leen di mbugal wal yashhad na fekkee njaalo mu ne balaa leen di gëtën wal yashhad wal yashhad bi day delluwaat ca fekkee njaalo ga wal yashhad na fekkee njaalo ga seede kenn du woo sa morom te bu duñ bokk fuñ jógee Sidi Mbay mii tey bu ñëwoon fekk Chérif Ibrahima Aïdara mii di njaalo mu dem woowi Mouhamad Bousso woo Imam Sey woo Ablaye Ba xam nga ñuy ñeent mu ne leen kaay leen palanteer baa ngi nii yër leen ñu gisa ndoor ma moom la ñuy duuma bàyyi ma seedam te yàlla bëggul ku weer nit waa kañ ah. moom la ñuy duma moom kañ day ñëw yem ci ne patt toog di xaar xëy na keneen gis ko ne sii di lu muy def fële waay te xoolal mu ne ko yàqu na muy yootal ndànk balaa moo jóg mu ngi mu ngi comme nag moom loolu lañ ciy bañ Sidi day ñëw fekk Chérif Aïdara ngi def action bi Ablaye Ba yem ci Mouhamed Bousso yem ci Imam Gay yem ci ñuy ñeent ñu gisandoor ni may demee di dikk te bokkuñu fu ñu jógee wootante wuñ booba lay wér ñu ne shérif mu nga doon njaalo dégg nga wax bi ah damay jàngale rek du ma ko waxi kenn wala boog Sidi Kunta su ma neexee ma ne Sidi Kunta Sidi Kinne ah su ma neexee ma ne Sidi balaa kii yeneen Sidi Kunta yi di ma mere waaye boo nee Sidi Kinne rek danañ xam ne sama bosa waaw benn ma jël ko ci sama bopp wala ma jël ko ci siidi Kinne. loolu rek moo mën a wér keneen koo tudd da nga ko yàpp loolu la ñuy jàppe nit ci njaaloo pour gëtën ko su amut yàllaa ngi wax ci kanam déglu li yàlla di wax mu ne wal yashhad na fekkee adaabahuma mbugal ma taifatun ab kuréel min al muminina ci jullit ñi néew néew ñeent azani déglu nag mu ne njaalokat bu góor laa yankixu du takk mukk du takk mukk illa lul bu jigéen comme moom bandi bande yu ànd ak waaye déglul nag nañ def très attention Seydatuna Aïcha nee folli nañ aaya bi julli ah, kaay ma léegi ma indil la ko ñu door a julli du nit mu ne azani njaalokat bu góor laa yankixu du takk mukk illaa lu dul zaniyatun njaalokat bu jigéen comme moom aw mushrikatun wala yéefar bu gëmul dara ate xam nga lu tax dama ca téere bale ñuy wax jawahirul iklil mooy bi ma fi doon wax bi di wër ci àddina bi yëpp vidéo bi siiw lool bi ma salee mante bu xonq bi te la ma wax asakay tuuti la ci li ma waroon a wax te noppi ba léegi mu ngi daw gars yi dawalaat nañ film bi xam naa neex na leen nag waaw Ibrahima waaw mais ñëpp déglu yonent bi salaay sallam nee na li tax bokk na ci li tax njaaloo garaaw nee na day gàttaloo fan day jëlee kanam bu rafet boo amoon xar kanam bu rafet bu nayi dëkkee njaalo dangay mujj ràpp say bëñ di buur say bët di naqari ku la gis sa kanam mel ni nga ñema ñu naan kii lu ko dal yàlla daf lay masxu ndànk ndànk du gaaw nag boo bàyyee mu bàyyi yàlla dafa am yërmande maa ngi ñëw yàlla dafa am yërmande ñun ñoo soxor yàlla dafa am yërmande déglul yonent bi nee na ca téere ba le ma lay wax ca xadis mu ne bokk na ci li tax njaalo garaaw day indi bekkoor ci réew day tax doo am wërsëg ah loo am jox leen ko di loolu rek bu ñàkk wërsëg la di loo am jox leen ko yaakaar nga ne di nga ko def ak ñoom te doo leen jox tuus bu yàggee doo am dara ci sàcc ñu ne na ràpp ci kaso bi ngay mujj kon day li mu wax ne day gàttuloo wërsëg dëgg la day indi bekkoor ci réew dëgg la day tax yàlla téye tawam dëgg la day tax sa kan taaru kanam dem dëgg la mu ne day indi feebar yu bari amul mu ne ba ca gën a garaaw nag mu ne li tax bu sange woo ñu war ko rey ñu ne lu tax mu ne waxtu wu nit ki di njaaloo moo xam sangu na farata moo xam sanguut farata bu dee jullit nag bu demee sangu ji farata mu ne juróom-ñaar cent vingt quatre mille malaayika juddu nañ sa poor yi poor moo tax yàlla di la sanguloo farata xam nga njampeeg saa boo gën a set loo tax yàlla na ne demal nga sangu xobbeeku def nii def nii def nii dafa bëgg nga am yiw yiw woowu tukkee ci tukkee ci sëy moom la yàlla bëgg nga am ko moo tax mu lay sanguloo farata parce que nit ki bu àndeek soxnaam boo demee ci saar wële sa suratu baqara fi yàlla di wax ne nisaaukum xarsun lakum faatu xarsakum anne shitum wa qaddimu li anfusikum walaku waalamu na annakum mulaaquuhu wa bashiril muminin lu ko ci indi lu ko ci indi akañ ah, yàlla nee na jigéen ñi seeni tool lañ sa tool nag boo koy wër kenn du la ne tàmbaleel fii fu la neex ngay tàmbale tool bu naat gerte gi naat na béy nga ko ba mu rafet gisatoo ñax mango yi meññ na yàlla ne tool baa fu la neex commencé kañ moo tax dañ sib góor ànd ak soxnaam te fowul ak moom ba noppi ba mu xam ne lii la bëgg ñu dem en action dañ ko sib yonent bi nee na bu kenn fekk sa soxna mu tëdd nga ne ko pëkk pëkk sëy ak moom te neexaloo ko ba noppi mu ne soo ko defee yàlla jippi na la dégg wax bi loolu duma ci sori waaye yonent bi nee na booy sangu farata nag bu ko waxee dañ ne kii sanguwul farata teewul ñëw nañ nit ki buy sëy ak ànd ak soxnaam wala ku dul soxnaam juróom cent vingt quatre mille malaayika ñooy ñëw assister nit moo tuutiwut ab lay ngeen baal ma scientifique yëpp d'accord nañ ni sperme bu génnee di def tour pour pénétrer ndaw si pour doom war a juddu ñaata milliards la ñuy doon cinq cent cinq cent millions super supermato jeex na cinq cent million boo amee deux cent million du dem te gis nga li la war ne dafa garaaw droit nii la ñuy waree roxo mu jigéen bi comme ni kaaba gi ni ñuy tawaafee kaaba gi noonu lañ koy wëree benn ay pénétré mooy jur doom mooy tax doom am dem na ci yonent bi benn boo demee ba am ca doom doom ji niruwul niruwul ndeyam niruwul maamam xii xonq cur mu ne seetal say maam bu ko gaaw a tuumaal mu ne bu ku ca xonqoon rek moom la duppati ji buñ ne rek damaa ñuul mu ñuul mu ngi nii doom ji kii kañ moom xam nga ne juruma ko yonent bi nëpp naa def waaw ah, scientifique yi xamuñ dara kii mooy science bu mag bi yonent bi waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na ci bene boo gisee ku judd nuru ku góor ki walla ku jigéen ki ñu ne lu tax mu ne ku ci njëkk a pare rek yaay dominer sa morom ku koo xam ne superman moo nekk ci kaw rek kooku lay niru yonent bi mu ne jàngale na mu ne léegi nag nit boo ànd ak jigéen mu ne cent vingt quatre mille malaayika ñooy ñëw assister mu ne bu ñuy ñëw dañuy xam ñoom duñ gis yàlla rek ay gis foofu yàlla dafay assister waalamu mu ne na ngeen xam ne na annakum naka yéen ku góor ak ku jigéen mu ne bu ngeen summi ko benn dungu man yàlla maa nga fa waalamu na ngeen xam ne annakum annahu annakum mulaaquuhu da ngeen dajeeg yàlla ca foofa mu ne bu boobaa moom yàlla wa bashiri moo leen di bëggal ba ngeen mën a bég almuminina ñi ko gëm moo leen di bëggal foofu yàlla tànn mooy tànnal boppam moo tax roox kenn créé wu ko ku dul yàlla mooy choisir ban roox mooy dugg ak ban roox moo du dugg ni muy mel foofu la koy dispos disposition bi yëpp foofu la ko yàlla di dóor day xees day njool day gudd day gàtt day baax day bon day am wërsëg day gàtt wërsëg président lay doon sëriñ lay doon ku ñuy déglu ku ñuy ŋàññ autorisation boobu yëpp yàlla koy joxe te day assister ba noppi boo assister yéen ñaar ci seen comptabilité lay xool mu ne comptabilité xam ngeen moo tax yonent bi saa sal nee na ku juddut gërëmal sa ndey wala nga xarab sa baay ñooma kañ ñu baal ma rek mu ne cent vingt quatre mille malayka yooyu buñ juddoo mu ne boo xëyee di sangu farata ci la ñuy ximmaliku mu ne suñ ximmalikoo dañuy dem benn pays yàlla bu ñuy wax ardu simsim biñ ko ko laajee mu ne ardu simsim pays la ci pays yàlla yi boo xam ne mu ngi nekk diggante asamaan ak suuf yeggul asamaan yeggsiwul suuf ñu ne ko lu fa ne mu ne ay malaayika rek a fa nekk te yëguñ ne sax yàlla bind na maam aadama te ci jëfi doomu aadama yi lañ juddoo mu ne mooy sa yaram dafa am cent vingt quatre mille pores pores bu ci nekk malaaka ciy judd nee na suñ déparé nag di dem ardu sim dañ naan yàlla ñun de ay Aïdara ñu fi indi te buñ ñu fi indi indeewuñu fi ci li la neex ñu ngi lay ñaan sak rëbb gàtt wërsëg gaaw a dee deegu bon musibaak bala yàlla bu mu dañ di wàcc ci moom ilaa yawmil qiyaamati <laughs> nee na départ nag dem ardu sim-sim nee na duñ arrêté ñaan googu fekk gëtaluñ la mu ne te ñaan googu xajut ci nit 124 000 malaayika nee na bu dee ci yoon nga ko jaar yaag sa soxna suñ la may la mu ne danañ juddu dem ardu simsim mu ne bu ñuy dem ca départ ba la ñuy wax naan yàlla ñu ngi lay ñaan Chérif Ibrahima ci moom lañ juddoo moo ñu fi indi waaye ci li la neex ca soxnaam su ko dagan soo ko may ci lañ juddoo ñu ngi lay ñaan wërsëg wu yaatu dund gu neex kanam ngu leer gudd fan mbégte àddina ak àllaaxira yàlla bu mu deñ di wàcc ci moom ila yawmil qiyaamati ci la waxee nag ne ñaari ràkkaay li ku am jabar maa ngi leen di géñal ci yàlla man mi yàlla yónni ne ëppee na fukki rakk ki amul jabar ne ñaari rakkaay ki am jëkkër maa ngi leen gi géñal ci yàlla ne ëppee na ki amul juróom-ñaar fukki rakka ca la ca tegee ne maa ngi leen di géñal ne siraarukum uzaabukum maa ngi leen di géñal ci ne ki yées ci yéen mooy seen célibataire yi mu ne bu góor baa bu jigéen ba yemu ca yonent bi li wax ci sëy dafa garaaw yemu ca mu ne maa ngi géñ ci yàlla ne man lam ma man maata wa lam yuzawij faqad maata miitatal jaahiliya mu ne ku deete amoo jëkkër wala nga deete amoo jabar mu ne dee nga deewuk ceddoo rek mooy dee nga ci lu kenn xamul ci xiini xiini mu tegaat ca ne almaratu sitraani azawj awil qabr léeg-léeg nga dégg nit ñi nag di ko critiquer waaye du cri kenn waratu ko critiquer mu ne jigéen ñaari sutura rek la am mu ne na fekk sutura bu njëkk bi mooy borom kër mu ne beneen sutura bi mooy su noppee am boroom kër rek na fekk ci bàmmeel la jëm mu ne waaye féex fi jigéen waru ko def mu ne si almaratu sitraani azawj awil jigéen ñaari borom kër wala bàmmeel mu ne su noppee am borom kër rek na fekk bàmmeel la jëm waaye xaju fi kañ moo tax saydatuna Aïcha nag ne taifatun min almuminina azani la yankixu illa zaniyatun aw mushrika mu ne njaalokat bu góor bu leen may lu dul njaalokat bu jigéen comme moom wala ate bu gëmul dara mu ne waaye wa zaniyatu jaal njaalokat bu jigéen it laa yankixuha du ko takk mukk illa zanin lu dul njaalokat bu góor comme moom aw mushrikun wala ate bu gëmul dara wa xurrima xaraamal nañ zalika ci ci njaalukat yi alal mu alal muminina ci ñi sell mu ne ko sell bu leen ko may mukk njaalukat waaye déglu li saydatuna Aïcha wax moo tax saydatuna Aïcha nee na nag na ngeen bàyyi xel ne aaya bii ñu ne mu ne yàlla man sooxal na ko taxrim bi mu ne yàlla man suuxal na ko ñu ne ko ci lan mu ne bi qawlihi fankihul ayaama minkum wasaalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yugnihum allahu min fadli ñu ne ko lu tax mu ne wallahu waasiun alim ah Aïcha mën na jàng ah, fankihul ayaama minkum mu ne aaya bii may wax man Aïcha moo folli bii mu ne kon ku ngeen gisati muy njaalokat fexe leen ba may ko ku yiw ndax mu yiw waaw ah, yow boobu sax rokki ma rokki la boobu bokkut tayibaatu li tayibiina boobu sax doxut waaye boobu li nañ ko xamuloo yàlla ne ñu baax ñi ñu baax ñi rek ñu bon ñi ñu bon ñi rek cheikh al islam alaaji ibrahim ñes moo daan wax ne ah, bu fekkee loolu rek na gi jaratu ko nag bàyyi moo daan wax ne su fekkee ne ku bon ca bu ñu bon ña ñu baax ca ñu baax ña mu ne jaratu ko mu ne da fekk ku taq benn ripp nga jëlee ko ca rippam ja indi ko ci cellate mu ne looloy ndamal jullit lool la Baye Niass daan wax mu ne waaye cim sell kese mu ne luñ fii def ba mu ne da ngay fekk ku taq benn ripp nga jële ko ca rippam ja indi ko ba mu sell beneen naññ nga jox yàlla te bàyyi mi ko wax jëfee na ko waaw bàyyi mi ko wax jëfee na ko ba tàyyee àddina bi yëpp teg nañ ci seen bët loolu la jullit di dox jullit kañ day fekk ko taq mu indi ko ci ci leer moo tax nag sayyidatuna na ne ji folle nañ ko bu ko kenn jàngati ci jàng mi mu ngi fi waaye atte bi folleeku na ku ci gis njaalookat te mën ko jël defar ko mu ne jël nga defar rabiatul adawi kañ lan la woon néegam la ubbi woon wala waaw ku ci gis njaalokat te mën koo defar mm-hmm. ah boo ko mënta defar bul jël de balaam laa yàq ni moom waaye bu la wóoree ne mën nga ko defar jëlal di nga am duubul tiyaabo mm-hmm. génne nga ko ci lu bon indi ko ci lu baax mm-hmm. ba pare nag ñooñu buñ tuubee ñooy raw ñi fi nekkoon rabiatul adawi kañ fu mu njëkkee ubbi néegam di jaay boppam di encaissé di def ci nafaam xëy xëy ne man lu ma dal li may def lu ko jar ndax góor ñi nopp nañ ma rek mu ne mu ne fase naa ñëpp nopp naa yàlla bés ni tey fase naa ñëpp ku ñëw koŋ koŋ koŋ rabia xaalis baa ngi mu ne lan mu ne jëlal ak sa xaalis foo xam nga jëm banaa yooyu mu jig naafi la rek junni rakk lay naafi la par bés nii ba tey histoire bindu ko mille rakk par jour la Seyda la Rabiatul ba tey ci ponkalu nitu yàlla yi la bokk bokk na ci jigéen ñi doon siège ci xadaratul ilahi Rabiatul Adawi dem na bay siège bokk ci jigéen ñi siège ji ak fa mu tàmbale ah hind kañ moo gën a garaaw te hinde dem na ba ba bokk ci sulaxaa yi ak lim def yëpp nga xam ne keroog bi mu ñëw ci yonent bi di tuub bu masqué wu ñu sacrifié ko waaye dafa masqué wu muuru muuru ba fii des mu ñëw di wax yonent bi ba yonent bi xam na sax ne indi la waaye gaa la gaa yi la doon kamafule bañ ñu massacré ko mu dool di ne mu réer mu laay ne ko man la hind nag yàlla ni jibril dalal de mm-hmm. demal ne waa ji mu dal mm-hmm. sama waa ji demal ne ko mu dal mm-hmm. yaa ayyuha nabi ida jaaka al muminaati yubayi'naka ala an laa yushrikna billahi shay'an wala yashriqna wala yaznina wala yaqtulna awlaadahunna wala yaatiina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna kappoot wa arjulihinna pelil palaani ah takraar waaw bismillah ah waaw boobu loolu lay dox yàlla lim rek li bari na yaa ayyuhan nabi idaa jaaka almuminaati yubaayinaka ala an laa yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awlaadahunna bi buhta wala yaatina bi bu bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna kappot wa arjulihinna pulil wala yaatina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna mu ne bu boobaa nag fa bàyyi xun na amatoo droit nag fa bàyyi oxon na na nga jaayanteeg ñoom yàlla bu ca yem wastaxfir lahunna na ngeen leen jéggalul yàlla yàlla régler problème mu indi mu jeex te ba mu ñëw trois cent personnes la àndal duggaaleeg ñoom ci l'islam délégation une forte délégation trois cent personnes ñëpp dugg ci l'islam ci benn bëccëg mu effacé lam defoon yëpp Hmm? inna allaha kaana gafuran rahiman moo tax nag mu ngi noonu Omar hmm? wa xurima dalika alal muminina saydatuna Aïcha nee na firi laaye jooju man suuxal nañ ko mu ne ba ko man suuxal mooy fan ki wan wankixu wankixul ayaama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله lu tax wallahu waasiun alim sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu nabi almustafa alkarim sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw